salaamaaleykum ami téléspectateur de Leral TV et de Leral point net comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ñu ngi fii ci résidence Cheikh Mouhamed yu tey nag ñu ñëw bile yoon nag war a waxtaanee li nga xamante ni moo di tarixa axlu yu ana yan charte la ñuy chartanteeg njaboot gi nga xam ni bëgg nañu dugg ci biir tarixa bi léegi léegi lay doon ci biir euh, waxtaan bi ñu nar a séq ak suñu kilifa. salaamaaleykum papa Bekkaay. waaleykum salaam. papa nag comme ni niñ ko waxee ñu war a waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moo di tarixa bi naam bu fekkee da ngay récapituler rek ci eh, jaar-jaar yi mën nga ci ñëw après nga dugg ak ñun ci tarixa bi ak yan charte ngeen di chartanteeg seeni ay eh, taalibe. Euh, macha allah xam naa ni dañuy commencé rek ci Seydina ba mi gane jamono 620 euh, keroog bi nga xamante ni gane na jamono. li ñu naan toqantal salaay salaam moo ko defal ci boppam ndax soxna suñuy wax soxna bintu Sofiyatu bintu Abdul Mutalib moo ko leewu indi ko ci salaay salaam ne ko ñaanal sa sët bi salaay salaam génne li ñu naan tiflit ci gémmiñam def ko ci gémmiñu ba ne yàlla dina nangu ñaanu Oqba ba àddunay tukki ba du dund ba àddunay tukki mais njëritam bi fi des di dondante ndondal yi ñoom la yàllay nangu seen ñaan ba àddunay tukki Seydina Oqba moomu moo sanc xayrawan ci 662 njaboot googu ñoo tas ñëw Algérie maam Cheikh ma feeñ fa jamono ci 780 jaari ci sëriñam tarbi ko Cheikh Sidi Maxtaar moo ko yebal mu ñëw Sénégal sanc dëkk bu ñuy wax ndànk naar ci 1800 toog fa 40 ans dundam di 60 ans mu génn àdduna ci ci la Cheikh Abou Mouhamadul Kunti mi sanc dëkk bii ngeen nekk di Njaasaan ci la gane jamono ci dëkk bu ñuy wax ndànk naar ci cent 1840 bi mu ganee jamono bi muy am huit ans la dem gànnaar ci à l'âge de dix ans ci la ñibbisi sëriñ ba ko doon jàngal di Amadou Daw Gaal ñaari at yoo xamante ni Cheikh Mouhamadoul Kounti yi nee na fa mu di ko sàtte Cheikh Mouhamadoul Kounti yi mosul tontu bi mu demee ba am fu mu jëflanteek moom ci la xam ni kii li yàlla bëgg ci moom préparé na ko ci la ko wàññeeku mu ñibbisi ci la dugg xalwa ngor ci 21 naa jóge fa dem Gunjur Gàmbi dugg fa xalwa bi mu fa duggee xalwa ci la ko fa yàlla woon ñett moom Cheikh Abou Mamadou Kounti yi ci la ko woon dëkk bi nga xam ne mooy Njaasaan ci la ko woon dénkaane bi nga xamante ni bi waajuram bàyyi na ko gànnaar te boobu ganeegul jamonoom war koo jëli ci la ninki nànk bi nekk ci gox boobu ci la ñëw nangul Cheikh Abou Mamadou Kounti yi jébbal ko boppam loolu mooy xalwa yi nga xamante ni def na ko Gàmbi muy junniy guddi ci la ñibbisee nag dem jëliwaat dénkaane boobu Mauritanie bi mu ñibbisee ci 1873 ci la bàyyi dëkk boobu di dëkk baayam di ndànk naar ñëw dëkk bu ñuy wax Bagne Fall Bagne Fall mu ngi fii ci Pire deux kilomètres digganteem ak tali bi fa la def fukki at fa la taawam it ganee jamono muy maam Cheikh al Bekaay al Kunti maam Cheikh al Bekaay Kunti moom fa ganee jamono mooy waajurul actuel xalif bii. xalif bi mooy caatu maam Cheikh al Bekaay mi nga xamante ni mu ngi ganee jamono dëkk bu ñuy wax Bagne Fall ci 1874 bi bàyyam sañ ci nekkee Bagne ba am fa un an ci la maam Cheikh al Bekaay al yi ganee jamono. waaw mu mel ni jaar-jaar yi ni nga ko tracé euh, leer na waaye nag ñu dugg ci li nga xamante ni moo di tarixa bi yan chart ngeen tëral ni lii mooy tax nga doon taalibe ci biir. waaw parce que Cheikh Abou Mamadou Kounti bi mu ñëwee fii à 1883 asam toll ci 42 ans mu sanc tarixa bi nee na bi nga xamante ni ci 1883 sanc na fi dëkk bi nee na yàlla àtte na ñett feeñu na ko ci dëkk bi mu ni bi nga xamante ni bi mooy fii jiitu am na doomam ju ñuy wax Cheikh Sidil Amin ci la gane jamono mooy borom étage bi ngay dégg ci Njaasaan euh, aussi dëkk bi amoon na problème mu ndox ci la toj doj woowu nga xamante ni moo indi woon dex gi nga xamante ni moom lañ daan wax si yaanu Njaasaan bi ci desit mooy ninki nànk bi nga xamante ni bii joxoon na ko boppam ca Gàmbi ci la ñëw ziar ko fii nga xamante ni bii mooy Njaasaan bi mu sàncee dëkk bi Cheikh Amadou Kounti samp fi daara. balaa ngay ñëw ci daara bi ninki nànk dañ koy dégg jamono jii surtout ñun ndaw ñi ñu dem ba di ci jouer benn théâtre ninki nànk tey boo ma ko doon faram fàcceel pour ñun ñi nga xamante dañ koy dégg nii rek mais ci théâtre lañu. waaw ninki nànk boo boo ko dee dégg dooleem dafa supérieur doole jinne yëpp parce que jinne rab seytaane ñoo am mais ninki nànk mooy catégorie jinne bi gën a kawe waaw bu benn jinne doone juróom-ñaar fukki doole ninki nànk bi day double juróom-ñaar fukki doole yooyu waaw lu mooy xeetu ninki nànk du loo xamante ni bii yéen a ngi koy joué sax waaye mënu leen a gis ninki nànk bu koy gis ndax ninki nànk su la njëkkee gis dootoo ko nettali waaw <laughs> li nga xamante ni su la njëkkee gis doo doo ko nettali yaakaar naa ni kooku nit du ko tara wër ba di ko gis. mais mu ngi am ba léegi. waaw mu ngi am ba léegi ndax yàlla may na ko bu bëggee bu meree jëmmi jaan ji lay indi su fekkente ni bii kii nay jëmmi doomu aadama lay ñëwee waaw niveau bu ñaari niveau yooyu lay ñëwee. loolu moom kéemaane na. waaw parce que may-mayu suñu borom moo nekkee noonu jinne bu bëggee ñëw ci yow bu ko neexee jëmmi doomu aadama mën naa jël sax jëmm joo xam. ñëw ba jataay yow bay dem ci ngay soog a ci la lay soog a xamal ne du jëmm ji mu jël mm-hmm. waaw mais su fekkente ni bii safaan ñëw na ci ñoom su leen neexee ñu doon tàkk-tàkk bu leen neexee ñu doon jaan su leen neexee ñu doon leneen mm-hmm. léegi nag ñu waxtaan ci li nga xamante ni moo di siyaan bi ndaxte ci biir ay kàddu ñu ngi dégg ne ndox amul woon mu daal di eh, bënn li nga xamante ni moo di siyaan ndax mu ngi am ba léegi wala dafa dee. waaw siyaat yooyu nga xamante ni bii mooy kii maa ngi koy wax sànq ni mm, bi nga xamante ni bii sànc na dëkk bi dëkk bi dafa amoon problème mu ndox waaw am na benn teen bu fi amoon mais neewul ci dëkk bi ci yeneen dëkk yi nga xamante ni moom lañ sësalool ci lañ nekk njabootam di dem di wuti ndox mi mais xam nga dëkk su fekkente ni dafay màgg su fekkente ni leneen da nga koy jéggaani ci beneen dëkk bu yàggee xat-xat day ñëw maanaam li ñuy wax. Euh, siisenteeg xëccante te nit day yaakaar ni bu dëkk entier dee root ci teenam bu yàggee teen bi mën naa dee na amee problème mu ndox mu amee noonu problème mu ndox ñu tàmbali di xatal njaboot gi waaw yàlla atte Cheikh Mamadou Kounta da doon ko am yërmande ci doomu aadama mais rawatina ci taalibe yi ak dongo yi nga xamante ni bi ñu ngi woon ci daara ji waaw bi mu demee nag ba gis benn waxtu bi mu génn gis ñu war a taalal dongo yi te taaluñu ci lay laaj sababu lu waral taalaguñu ba léegi ci lañ ko xamal ne daal suuf ba léegi jafe-jafe wàllu ndox daal moo tax mën a ko ñoo taal ci leen incha allah ci kàttanu suñu borom dinaa deew ak suñu borom dinaa loolu dina saafara wu allah waaw ci ni ñu ko waxee ci la dem nag fatu bi nga xamante ni bii génn na ci la ànd ak mag ñi muy àndal dem ba foofu nga xamante ne bii fa la doj bi tege ki yoon mu tibb suuf ñaan li muy ñaan sotti ko fa siwaat ni leen bu guddi jotee kenn ku ne mën naa teel a fatu ndax am na kéemaan goo xamante ni yàlla suñu boroom nangul na ma ko te dina ko def bi ñu tëddee ba xaaju guddi ci lañ dëj dog doj yooyu éclaté bi mu éclaté ci lañ xëy ndox mi sànni jëm kaw biñ ko ko waxee dafa tibbaat suuf jox leen ñu dem sotti ko nag ndox mi soog a dal soog a tàmbalee daw doon ak dex waaw. léegi ba léegi mu ngi fa. waaw ndox mi nag fi mu toll nii dem na waaw dem na des na fa teen boo xamante ni bii ñu ngi koy barkeeloo mais ne ton te li nga xamante ni bii moom la dex gi meloon dex googu dem na. tey jii ki nga xamante ni moom moo ñëw bëgg a ci tarixa bi moom lan moo ko war. waaw tabarkàlla macha allah parce que wax nga lu am solo li jiitu ci tariixa mooy nit mënul dugg ci tariixa te nekkul jullit. nit ki ginnaaw bi nga xamante ni bii nekk nga jullit ba pare nga xool ba nitu yàlla moo la doy mag ñu bari sax ni ba nitu yàlla la sa maam yi jàppoon ak sa bàyyi ndax nit du dog kóllëre ndax ku bañ lu sa bàyyi bëggoon nekk dof bu saaraan nit du bañ lu bàyyam bëggoon waaw sa bàyyi bëggee lenn bu jóge fi loolu da nga koy jéem a saxal continuer ko parce que loolu mooy su kóllëre waajur loolu waral euh, nit ñi di xool ni sama maam murit la woon wala tiijaan la wala xaadir la woon damay dem ma jokki ci loolu nga ñëw xool nit yàlla boo xamante ni bii euh, dénk nga sa bopp pour ànd ak moom ci yoonu yàlla waaw mu nekk ci sa git euh, maanaam di la li nga xamante ni bii mooy sart yi waaw parce que xëy na su fekkente ni bii maa ngi ñëw tuuti abu Abou Mamadou Kounti yi bi nga xamante ni bii moom dem na bay génn jamono dénkaane yi nga xamante ni bii moom la saxaloon taalibe yi mooy dañu woon nañ leen digal ñu jaamu yàlla taalibe yi nañ leen sant ñu fexe mokkal alxuraan bi ci des nañ leen digal ñu nangoo liggéey bi ci des ñu fonk seeni waajur waaw ndax nee na jaamu yàlla dafay tax nit texe boo mokkalee alxuraan bu yàlla yi lim ay gaam dala ciy boole boo nangoo liggéey dara jomb la waaw ndax xam nga ki soxor mooy ki yaafus mi nit bu dee tuur ñaqam yaakaar ci njariñ danaan lu nit mën a am mën naa ko am kooku du soxor te day am ambition te day xam fa nga xamante nii fa la jëm moo tax mu naan nañ sant nit ñi ñu nangoo liggéey bi ci des ñu fonk seen waajur parce que boobu moo tardeel àdduna boobu mooy bi tardeel àdduna gis nga ko am doom lu ñu digle ci waajur di nga ko mën a xam parce que xale bi muy am weer bay am at bu ko dara dee metti waajuram bu jigéen day ñaan yàlla yàlla teggi loola teg ko ko ndax xale bi mënta wax lu koy metti bu dee waajur bu góor la su fanaanoowul dépense du nelaw mu ngi calcul ci guddi gi bu xëyee fan la war a jubali pour wut ko pour njabootam bañ a diñe wala ñu fande bu xëyee bu doon xiin wala muy taw wala muy ngelaw sax dina génn pour sàkku ji lu mu indil njabootam ngir lan tette ay doomam ngir yaakaar ne bu ëllëgee xale yooyu dinañ jub tegu ci jub man koo noppal waaw nga gis nag àdduna léegi ni mu tëddee ñaari pàcc day daal di am da gis koo xam ne day dem ba mën du mooyu ay waajuram ngir nafsoom toppi jigéen nga gis ñenn ñi du muy seen waajur ni damay toppi nitu yàlla pour mu defar ma ñaar yëpp bala ngaa dee da ngay perte àdduna da ngay perte yowmal am waaw coono waajur ci doom képp koo xamante ni dénk nga sa bopp ci àdduna te xiiru la ci jaamu yàlla xiiru la ci fexe nga mokkal alxuraan xiiru la ci nangoo liggéey xiiru la ci foog say waajur bee boo nga dem bàyyi ko. te loolu mooy li ngeen chartante ak seen ay. yi nga xamante ni bii moom la Cheikh Abou Mouhamadoul Kounta yi sartanteeg taalibe yi ndax loolu waral bi mu sañcee dëkk bi mu defar fi jullikaay retourné samp fi daara daawul nangu mbukk dongom dem ci tool yi te mokkaloo alxuraan ndax yàlla bala nga koo jaamu foofu nga xam ko moo tax bu nit mësaane ñëw mu xam ni li ko nit toppe mooy yàlla ak yonent bi danaa nañ ko yóbbu ci daara ji dalal ko baa mu fas yéene wattoo alxuraan su wattoo alxuraan ba pare mu xëyloo la ci da ci tool yi nga barkeelu ñëw mu ñaanal la yewi la nga war a dem pour jariñi sa njaboot jariñi sa askan loolu moo doon liggéey bi nga xamante ni moom la Cheikh Abdoul Kounti yi daan liggéey. mu mel ni tamit euh, dañu gis am na ay tarixa yam da jël werd waaye ndax yéen loolu tamit dañ ko dangeen am seen werd à am déet pour euh, tënk rek. waaw werd xaadiriya war nga ko dégg. werd wuñ ni la salaay salaam moo ko joxoon Seydina Ali silsila bi di wàcce noonu ba tey ji ñëw werd woowu moo fi ne waaw werd woowu jébbalu ala kulli haalin te mat a jël wird te sàkku jël wird dañ lay jox wird mu amoon benn question bu ma laajte woon jamono jële ci benn taalibe ma bëggoon ma ni ko mag ji dama bëggoon xam lan la bind ci yonent bi mu ne ma ñoom li ñu jàngal mooy ñu def zikrullah ndax loolu moom moo ñu mën a jokkaleek yonent bi buum bi di continuer ba ci li nga xamante ni moom la yàlla suñu borom bëgg. waaw parce que Cheikh Ahmadou Kounta nag euh, soo dee gis duñ ni la bindal mais jotam ci bind bariwul woon parce que dafa am mission bu mu wekkoo woon ndax yaakaar naa ni su fekkente ni bii ñëw nga Njaasaan ba léegi ba gàmmu weesook léegi un mois dina fi am yoo xamante ne bii bambara yi boo demee ñu ngi ci ñu ngi ci penc mi bambara yooyu nga xamante ni bii ñu ngi ci penc mi Cheikh Ahmadou Kounta yi da feeñu seen maam ya ca Mali jëmmi boppam ñu doxee Mali ñëw fekk si ko fii ci Ndiassane mu tuubal leen dugal leen ci lislaam looloo boole Ndiassane ak Bambara Cheikh dul Kounti ci mission boobu la nekkoon mission di zikkat di tudd turu yàlla ba jëmmam man man di xar di feeñu ay nit Mali ñuy doxee Mali di ñëw di dugg ci lislaam ndax nee na jëlee nit ci tarixa yóbbu ko ci tarixa nee na amul lu mu yokkal lislaam nee ni da ngay fekk ku gëmul yàlla gëmul yonent bi nga xëcc ko mu dugg ci lislaam keroog la lislaam di am ndam mu bàyyi fi sikar laa nga xamante ne bi day raxas jëmm day raxas xol parce que laa ilaha illallah boo ko jàppee laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu salaam loolu moo mën a yëngal aras moo mën a yëngal kursi yu lu yëngal aras di yëngal kursi yu yaakaar naa ni bu doomu aadama bi sellee ci jëmmam yaakaar naa ni lu am doole lay doon ci moom lan ngay ñaax ñi nga xamante ni ñoo di taalibe yi nekk ci biir tarixa bi waaw taalibe yi euh, ñeent yi nga xamante ni bi moom la sëriñ bi digle parce que Cheikh Abou Mamadou Kounta yi bi mu génnee àdduna am na juróomi xalifa yu ko wóotu ginnaawam juróomi xalifa yi mooy taawam di maam Cheikh al Bekkaay maam Cheikh al Bekkaay mooy waajuru xalifa bii bi mu fi jógee Cheikh Sidil Amin moo jël xilaafa gi bi fi jógee ku ñuy wax alxaaji Mamadou Kounta moo jël xilaafa gi bi mu fi jógee ku ñuy wax Cheikh Sidi Yaxya Kounta jël xilaafa gi bi mu fi jógee caatam di bàyyi bu Mouhamed Kounta jël xilaafa gi bi mu fi jógee sëtam bi njëkk a toog di alxaaji maam bu Mouhamed Kounta alxaaji maam bu Mouhamad Kunta nag bi mu fi jógee ci la kiy jël xilaafa gi di juróom di juróom-ñaareelu sëtam di juróom-ñaareelu sëtam moo nekk nii ñu naan ko Cheikh Albekaay Albekaay parce que ginnaaw waajuram la gane jamono ñu yëkkati turu waajuram jox ko ko duppee ko ko mhm. parce que moom waajuram a ngi gane at mu ngi génn àdduna 1929 moom ci la gane jamono ñu jox ko tur bi mu ñëw bi mu ñëwee dañuy xilaafa fekk na ma ci ma dëddu àdduna dara jaralu ma may tourné waat jublu àdduna li sama maam doon santaane sama baay yi fi jaar santaane ko sama mag ji fi jógee santaane ko loolu laay santaane mooy ne leen taalib yi ñu nangoo jaamu yàlla sant leen leen ñu mokkal alxuraan bi ci des ñu nangoo liggéey bi ci des nañu fonk seeni waajur ndax képp ko moomale sa bopp ci àdduna mu nangul la ko wala nit di la moomale boppam bisa ñëw kenn du la nangoo moom ndax ku ñu teg ci pindu bàmmeel la ci bàmmeel boo laajee ñi ko wër fan ngeen ko jëmee dañ naan la ñu ngi koy jébbali boromam ndeke kon ku dund la nit di jéema moom mais ku dee kenn dootu ko soxlaa moom dañ naan ñu ngi koy jébbali borom bi kon ñëpp xam na ñi benn borom a am muy suñ borom suñ borom moomu nag comme ca ngay mujj moom lañ lay jébbalee balaa moom jëfi santaaneem bala ngaa dem ci moom moo gën a wóor nekk ci leneen neex ba dem ci moom. macha allah mu mel ni waxtaan bi neex na ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaye ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan yàlla euh, fi ngeen bëgg seen actualité bi yegg fa yàlla yeggale ko fa yéen nit euh, ay ndaw ngeen yàlla defal leen gudd fan gu ànd ak wér-gi-yaram dëkk bi ngeen ñëw tey ji fekk ñu fi di njaasaan di dëkku leer di dëkk it boo xamante ni bi yàlla nangu na seen ñaan di dëkku si dul Kunti ndax borom def na fi fanweeri ak benn génn fi te lépp fi la ko fekk ñu ngi ñaan yàlla yàlla dotti seen i xéewal Euh, defal leen gudd fan gu ànd ak wér gi yaram ñu kontaan lool ci question yi. kii li nag moo nekkoon waxtaan bi leen doon digtal jëm ci li nga xamante ni moo di tarixa kuntiyu ñu dalaloon ceek ki nga xamante ni moo di suñu papa Cheikh Sidi Yaxya kunt di taaw ci biir kër gi mu mel ni kenn ku ci nekk rek wala taalibe bu ci nekk xam nga yan chart rek lañu chartanteeg kilifa bi te eh, muy nag ñu lu ñu war a eh, respecté leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewli